Even mambaran kati tabas minyona ma tonton de moom neex na de moom 15000 la ma ñaan ñi moom dañoo nañ ku ne 5000 bu ñëpp defoon borom 15000 ya dëkk neex ne damay sama julli xaama ne ko ñoom mënul. 5000 laay teg 5000 ngay teg sa mani bi nga yor nii. 5000 laay teg bu ko ngeen def ko ngeen 5000 tegal foo bëgg a teg. let's go. man beneen kilo nga yaa ngi koy joob eh, ko. su ma joobee lan laa ci am. comme d'habitude. mais ko rek yow. kon loolu. pardon soxna Seye. Oh, waaw dama naa gis kat nga yor xaalis bi si julli gi nii tamit mu bari lool. gaynde xaalis bi mu ñëw fi 5000 laa fi indi. Hmm. yow yaa ngi seet ñaari naxa naxa yee. ko liggéey dañ koy lijjanti. ñu ay naxa naxa lañ mu ñëw dóor leen bàyyi gañe fi 50 000 damay man koo lijjanti ba sonn soog koo. looy wax ni yow nga andi 5000 gañe 50 000. fii bàyyi xoolal biir sax mun nga ko fay am. ñu ay ñu ay naxa man de da nga may dafa leer man damaa sadik de. damaa sadik yii damaa sadik yor nga xaalis. ragaluma loolu. kon nañ dem fii sa yow. la yow yow naan sa nga de. sama gars yi. toog ah. li kil de. loolu dëgg. li ma si gërëm bi. pare nga looy teg. ma cinq mille teg. ñëwal. jox ko ñu waaj. di gañ di perte. jox ko daal jox bant bi. yaa moom. looy tegal 15 wala ku pare 15 000 ngay teg jox ma tegal ko fii yaa gagné jëlal lu ma la waxoon yoon waaye jël moom yaa ko moom waaye jël yaay borom yor nañ ay mën nga rek ci bu dee dëgg boo ñemee pare lépp loo teg. waaw ki daa ragal lool kii di nante. nante def ko 45. mais ko 45 def ko 45 mu teg 50 000. def ko 45 mu teg 50 000. ñëwal. day tool ayca. pare nga. yàgg na paquetel nga tegal lu waay mën. indi maa defaral sama bopp. yaa let's go. yaa defaral sa bopp waaw eh, tegal. ji fii jaafaa jëf sa jëfa jëfa tey. foofu nga koy teg. waaw pare nga. waaw pare nga. tey ko wóolu nga ko. foofu nga teg. fii laa teg foofu nga teg. pare nga. waaw ragaluma loolu ragaluma loolu laa wax. perte nga. ay man ya, soxla de. ma àndoon ak Awa Sow lii yëpp duma si fekk may bandi bandi lu te duma ci dara <laughs> li ma ci doon dogale ci tabax si na <laughs> te dama koo kaaje kaaje ba sonn fu ne dugg naa fa ñu may ma cinq mat vingt cinq ñu yóbbu ko <laughs>